coucou mes amours sama maquillage bi nanguwul deñ aji maas gay bambi sa jongoma ñun de nee leen ñu ngi nii fii ci Mbour ma ne ko xam nga yan laa jooy ñamanke alaaji buya maas nga ne conférence de conférence. <laughs> ni may ni sama journaliste bari bokkul. dëgg la waa ndekki taaj ko nag réew mi daanu. génn eh, fi mu ne dara jeexu fi. tubaari kàlla ma ne leen xam nga ñu jooy. am ba pare ma jaay ba. am njaay déggal lii ay wax desatu fi. parking baa ngi nii ci kër gi tubaari kàlla. cinq voitures pick-up ci biti. macha allah déggal Lai lola إلا الله لدربي يا ya jarandal ya wal خلي gat jox len lu nu solo tubaarikàlla ñew begal len bonheural len dara jexu fi degal suñu barbecue degal suñu piscine degal la villa degal li bobu a table a manger mbete salle de conférence 17 places <laughs> degal baar bi le yaa mën kay international bi wàcc ba daan naa la wóoru ku daan da ngay féete kaw mën ma ko maîtriser c'est pas évident ba bi baa ngi ne daf ñoo defal ba defal ñu ay fayukaay ay fayukaay y'a des jacuzzi y'a tout dedans y'a tout dedans regarde la bière <laughs> il y a en en bas dans les côtés dans tout yee waay buma yegge yéegee tubaarikàlla ci sama yi rek ngeen yu ku ci nek sa néeg lébu mali maram doy sama waji andal siko ko nii tubaarikàlla ma sallah neena la tegoo ma bët man maam Njaay saxoo mii mënoon lébu maali maram ndooy sama waa ji yaa ma dëkkal bu la neexoon nga ne non non c'est que xale yi foog leen. ñaari balance lañu. bii nii kan ngay coppati nee nañ ñoom nee nañ xale yi nee nañ nga wax vérité bi man kii laa appoo suñu baat kii laa appoo appoo nga lu wow xale yi nee nañ nga wax sa kii xale yi nee nañ nga wax vérité bi vérité bi nee nañ yow nga wax vérité bi man nag nettali ci moroomu boroom ci gémminu boroom la dàqee foo nga ñëw wax xale yi man ak yow lu ñu séq assiste fee dégg nga waa léegi nag xale coofeem du ngeen ko bindal ay kër xale coofeem du ngeen ko bindal ay kër rasay da yokk naqar fi mu ne de nekkatul naqar bànneex la léegi nag galay au pas on va on va marier on va on va ñëw sali pour lune de miel. ah. non non dama ko wax ak. <laughs> la ah, police na ci am.

bi daal de bu ma lekkatee yàpp xam nga dama bëgg coca. waaw dama naan coca bi jàllal. fu naa ma doo naan coca ma ne ko na jàll damay ba yóbbu sens bi rek <laughs> ma ne maa ngi lekk ni ma toogee nii waaye yàlla baax na rek. <laughs> taxee ba tey sama sub bi daa def bu ma lekkatee yàpp rek xam nga dama bëgg coca. waaw dama naan coca bi jàllal. fu naa ma doo naan coca ma ne ko na jàll damay ba ñëw bi sans fi rek war. <laughs>